wa asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di wax ni wi di abonné te di activer cloche bi ndax euh, vidéo bu ñu dugal di ngeen bokk ci ñoo koy gis wéy di like euh, di commenter ka partager loolu ngeen ñu mën a jàppale eh, bu baax a baax ñu ñëw ci Mali gi nga xamante ne waa France ñoom ñoo koy éliminé tey ci demi-finale coupe du monde U17 match boo xamante ne Mali moom moo ko moomoon match boo xamante ne Mali moom moo ko dominé woon. Euh, ba sax ñu ñoo njëkk a ubbi score bi mais malheureusement ak carton rouge bi ñu am donc ci la waa France ñëwaati donc mën nañu wax gagné match bi à l' de cinq minutes mu nekk loo xamante ne war nañ ci jàngi mais également erreur d' arbitre d' arbitrage bi am bari na lool mais malgré loolu waa Mali dem nañ représenter drapeau Mali avec honneur ak drapeau continent Afrique bi yëpp. donc dañ leen di féliciter di leen wax félicitation du courage euh, ci bel parcours bi nga xamante ne def ngeen ko belle aventure bi nga xamante ne def ngeen ko franchement génération Mali bi ma gis ni euh, ay talent képp la muy Ibrahima Diarra bi nga xamante ne a fait un tournoi un tournoi exceptionnel 4 bi et 3 passes d'ici franchement bu demoon ba final donc je pense que c'est mooy nekk meilleur joueur tournoi bi parce qu'en en terme de statistique statistique mais également impact bi mu am ci jeu donc franchement gisuma jour bu ko ci am donc euh, génération la boo à ne am à avenir bu baax en tout cas ñu ngi leen di féliciter di leen wax di encore une fois donc bu beneen yoon.